convocation bi parce que jàpp nañu ne itam li xewoon lépp daan nga ci loolu la jóge convocation bi nan nga ko nan nga ko gisee. Euh, li nekk mooy ñaari nit ay citoyens mhm. ou même bu ñu ñëwul citoyen parce que ku nekk ci réew mi te doo citoyen mën nga am jafe-jafe ak citoyen mais en tout cas deux personnes physiques bu ñu jotee dans un dans une affaire yoon mooy àtte l'État du Sénégal ne pas parti dans une affaire privée ñaari bu ñu jotee justice mooy seet ki tuumal ak ki naan defuma dara mu teg ko ci yoon ndax yoon balance moo koy symboliser mooy équilibre ku ne ñu déglu la jox sa àq ki porté plainte di partie civile victime dafa am ay droit ki ñu accusé dafa am droit de la défense soo demee ci constitution article 9 in fine dañ la naan le droit de la défense est absolu soo seetloo suñu droit c'est l'un des rares droits absolus mooy la défense la défense mhm. droit absolu bariwul soo ko xoolee suñuy texte lu jar lu raar la mhm. droit absolu mooy droit boo xam ne kenn mënu ko porter atteinte kenn waru ko wàññ d'accord donc mooy à toutes les étapes dañ ko respecté ci côté bi mooy droit bi Ousmane Sonko am parce que mooy droit la défense dañ koy respecté d'accord victime aussi dañuy respecter droit. Mhm. mooy dañ koy déglu. Mhm. bu paree nag kii atte mooy atte wax li ñuy wax am na tuuma bi ou amul. Mhm. maintenant dafa am suñu organisation judiciaire moo am ci réew yëpp dafa am lu ñuy woowee privilège de juridiction. am lu ñuy wax immunité. privilège de juridiction mooy ñenn ñoo xam ne tekkiwul ne kenn waru leen atte. mais mu munuñ leen attee comme ni ñuy attee Massamba ak Mademba mbaa ni ñuy attee Jogoy ak ñila la faw nga am foo jaar il faut nga am procédure à part comme haute cour de justice mhm. ministère yi dans l' exercice de leur fonction bu ñu amee lu ñu leen di tuumal dafa am procédure spéciale mhm. avocat yi même chose bu ñu leen di atte dafa am juridiction bu nekk cour d' appel mhm. loolu ñuy wax privilège de juridiction tekkiwul ne da am immunité ou da am impunité loolu la neex nga def maintenant mu am ñoo xam ne dañu am immunité mu di député ko jox immunité bi pour mu mën a def liggéeyam normalement. joxuñ député immunité pour mu jàpp ne impunité la. Mhm. mbaa ñu jox ko mu yaakaar ne day def lu ko neex te dara du ko ci fekk. dañ ko ko jox pour mu def liggéeyam pour mu mën a mucc ayib ndax askan wi la fi toog. Mhm. kon su nekkee ne dafa am koo xam ne député la ñu bëgg ko topp fala budda dañuy topp li yoon wax ñaari hypothèse moom. Mhm. soit flagrant délit su nee flagrant délit. foofu gën a gaaw mais kooku article quarante cinq du code pénal moo wax lan mooy flagrant délit une infraction qui est actuellement entrain de se commettre ou dans un temps voisin. mais ci le cas Ousmane Sonko mm-hmm. gisuloo ci flagrant délit yow. non euh, euh, li ma mën a wax daal moo di ne. Mm-hmm. état bi pas état bi procédure bi. Mm-hmm. enquête préliminaire moo fi nekk. mais dama lay wax ñaari cas pour député parce que par parle de manière générale. su nekkee flagrant délit la. amul levé immunité comme nii maintenant bu nekkee ne enquête préliminaire la mënuñ la convoqué bu dul dañoo dindi sa malaanu kiiraay tout à te pour ñu dindi sa malaanu kiiraay dafa am procédure bu ñuy topp mhm. déjà article 61 de la constitution moo posé principe immunité nga demaat ci règlement intérieur article cinquante et un rappelé waat principe bi. ci assemblée nationale. waaw mm, cinquante deux mm-hmm. encore bu règlement intérieur. tout à fait mm-hmm. wax immunité bi. Mm-hmm. renvoyer article trente quatre du règlement intérieur. sur la procédure. kon mu di ne donte dañu war dindi sa malaanu kiiraay mais dafa am loo xam ne aussi foo ñu leeral ko. c'est que dindi malaanu kiiraay tekkiwul ne acte de poursuite la non du acte de poursuite assemblée deful acte de poursuite tekkiwul ne acte de jugement parce que nit ñi dañuy foog ne assemblée buy dindi sa malaanu kiiraay dafay def acte de poursuite. parce que nag loolu lañ fi faral di gis. quand même topp la acte wala <laughs> ah. même bu nekkee ne nag dans le débat. Mhm. parlementaire souvent boo amee ay députés yoo xam ne amuñu culture démocratique amuñu culture politique ou bien amuñu culture juridique mun nañ ko jaxase mais c' est pas un acte de poursuite boo xam ne assemblée koy defal boppam. Mhm. dafa am ku ñu bëgg ñu ne la dindil malaanu kiraayam donc du mhm. acte de poursuite du acte de jugement mhm. parce que bu ñuy dindi malaanu kiraay bi lan la lan la bureau bi di vérifier dañ naan da ngay xool ndax la requête a un caractère sérieux sincère et loyal loolu rek ngay vérifier et d'ailleurs dossier bi yëpp aussi du dem parce que doo tribunal donc dossier bi nga xam ne moom la àttekat bi yor mu di juge d'instruction mu di procureur mbaa bu nekkee juge du siège duñ ko jox lépp assemblée dañ koy tenk parce que assemblée du duñ ko jox lépp dañ koy tënkal fay jox ko li ñu jàpp ne lu am solo la pour mu mën a apprécier souverainement ndax jar na ko mm-hmm. mais loolu mooy suñu yoonu réew mooy yoonu grande démocratie yëpp mooy képp koo xam ne député nga buñ la buggee topp buñ lay wër buñ la buggee yóbbu kaso il faut ñu dindi sa malaanu kiraay ba pare su boobaana nga dem wuy ji mm-hmm. mën nañ la bañ a topp mën nañ la déglu ba pare nag bañ la toppaat c'est pas parce que dinañ sa malade mu kii raay forcément dañ lay topp mu ko mën nañ la entendre et tout ne defoo dara y a ah, mu jeex ta ah, non loolu loolu comme mën nañ la topp aussi. loolu juge. tout à fait jàpp ne am na lu muy njort ne nekk na ñu yóbbu la euh, jugement. loolu loolu loolu loolu yëpp ay hypothèses yu mën a nekk. d'accord dinañ ci gën a ñëw mais li ma bëgg a dégg sa wax bëgg aussi nga nga leeralal ma ko rek mooy euh, ci cas bi euh, convocation mënoon na ñàkk ci mbiru Ousmane Sonko en tant que député. ab député kenn waru ko convoqué bu nekkee enquête préliminaire la mënul nekk en droit. d'accord ba bañ koy ba ñuy convoqué ab nit ki loola est-ce que ka ko doon convoqué yaakaaru loon ne flagrant délit la xam nga droit interprétation la kii convoqué mën na juum au départ mën na yaakaar moom ci niñ ko présenté yëf yi flagrant la. fekk du moom. Ah, mais bu koy mais en aucune manière bu dul flagrant délit. mais bu ko yaakaaroon mais bu doon daf ko yaakaar mais day continuer ci loolu. day continuer ci convocation non bu ñu fàtte leen. Euh, kii convoqué donc cela veut dire bu ci continuer wul mooy. yaakaarul woon loolu. non doucement kii convoqué. waaw dafa am ko ko yilif. Mm-hmm. xam nga euh, police buy entendre nit ou gendarmerie. enquête bi dañ koy def sous la supervision. tout à fait. Mm-hmm. maintenant moom policier bi ou gendarme mën na def convocation te yëgluwul ci hiérarchie mën na arrivé boo defee plainte directement yóbbu ko police. Ah, ak gendarmerie premièrement bi bu ñuy enquête. mais c'est pas forcément. da xaw ma. Ah, non non non mais wax ci fee dama lay jox hypothèse loolu moom lu leer la nag. waaw waaw dëgg yàlla xam ko juume. maanaam par exemple di ci def dara wax dëgg fa mais dama ne la bu nit déposer plainte directement. à la police ou à la gendarmerie policier mën na la entendre te du référé wu à la hiérarchie maintenant nag en fonction des protagonistes voilà parce que ñi fa ne mën na woote mhm. mën na nekk mais ay hypothèse la mhm. hypothèse la mën a yem parce que xaw ma ca leen loolu ñi ko seqoon ñoo mën a wax ndax woote na avant mhm. su boobaa bu nee woote na avant te terewul sant nañ ma su booba nit mën na ci interpréter leneen mais kon xamuloo ci loolu yëpp li nga mën rek mooy poser hypothèse yi. d'accord alors sëñ Saliou yow daanaka sax yaa junj débat boobu ba jàpp ni euh, responsabilité bi lu mën a partagé la ci li nga xam ni moom moo xew keroog euh, ci euh, cité kër góor gi yow yaa sax junj ni procureur ñàkkul ni am na ci responsabilité je pense que noonu nga ko waxee responsabilité boobu da nga ko teg rek ci convocation bi nga xam ni joxe na ko te waru ko joxe. fan nga jàpp fan nga teg yow que ni convocation bi waru ko joxe parce que dégg nga lii wax nee na mën na am ñoom dañu njoxtoon ne ci flagrant délit la ñu nekk kon convocation bi war na dem mu dem wuy ji. waaw xam nga bu demee bañ jort ci am mooy amatul lu ko leer. je que bu boo jëlee décision lu toll ni député. Mhm. nga ne ko bëgg a convoquer sans pour autant passer par la légalité war nga am lu leer loo xam ne ni ci nga mën a sukkandiku pour wax ne lii flagrant délit donc war naa ko mën dem jëli. bu fekkee ne da ko njort rek ça veut yow am nga ay amoo ay assez d'éléments pour war a ko mën a dem nga jëli dans cette histoire là il faut voir que ne procureur de la république daf ci dem ak zel daf ci dem ak par lu tax parce que yu demee nii comme euh, Daouda wax na ko léegi affaire viol dafa nekk lu lu doy waar te viol pour nga prouver ko il est extrêmement difficile pour nga prouver lu viol donc yu demee nii soo amee da nga ciy ànd ak sérénité mais patam patam te bi ci bi nga doon wax léegi cest à loolu moom lañ ci nit ñi gis te bu fekkente ne nag da nga ci bëgg a def patam patam cest à mbir mi nga xam ne da nga nit ñi dañ bëggoon mu leer finalement danga nga koy gën a lëndëmal te je crois que doxinu tooga euh, toogaayu procureur de la république en fait loolu loolu loolu la joxe. procureur bi la ma waroon moo di àndal teg ak tey bañ a topp aussi le mouvement des réseaux sociaux le mouvement des journaux et cetera parce que xam affaire bi mu amba ambalewoo finalement tout le monde et j'ai l'impression que le procureur de la République dafa suivre mouvance su presque ñi nga xamante ñoo nekk dans les réseaux sociaux ñoo nekk surtout aussi au niveau de la presse ak aussi les tierces personnes qui sont dans la rue mm-hmm. alors que moom dafa nekk à un niveau supérieur parce que mbir mi ci loxoom la tënku mm-hmm. donc li mu ci waroon def moo di ànd ci teg ak tey xool xam ne lii du flagrant délit mu jaar par la légalité man sax am ñu doon wax naan Ousmane Sonko waroon na sax comme que nañ ko tuumaal mu dem jébal boppam ma ne non même su demoon tey jébal boppam procureur lu mu waroon def mooy di mënuñu la déglu sans pour autant passer par la légalité parce que loolu la leen yoon sant je crois que bu fekkee ne yow da nga nekk nitu yoon nit su ñëwee bëgg a jalgati yoon da koy tegaat yoon mais nit ñun fan fan lañ jëm moo tax ma ne moom la nga xamante ne moom la def moo indi li xew le lendemain parce que bu xam nañ méthode nit ñi Ousmane Ngom convoqué woon nañ ko fii ñu wax ay ind euh, comment dire privilège de de de ñu dem jëli ko tënk ko mënoote ko yóbbu manu militaire yi mujjul fen Ousmane aussi c'est un homme politique am na yu ci bëri ay jàngat yoo xam def na ko sur le procès ci affaire Khalifa Sall affaire mhm. Karim Wade wax na ko sax donc aussi moom il se dit en tant que homme politique mhm. il ne va pas du tout se laisser faire am na ay militants yoo xam ne peut-être bu ñu ñëwee mën nañ ko jox doole mën nañ ko jox lay encore faire de sorte que peut moom dañoo ko war a mën a protéger mais en ce moment là aussi am ci lu mu tënku parce que moom jàpp na ne député la donc war nañu jaar par la levée de son immunité parlementaire pour ñu war ko mën a jébbal maintenant justice bi donc su fekkante ne tey procureur bi tënk woon na ci loolu man jàpp naa ne la nga xamee ne moo fa xew tey du fa xew mais nag moom la nga xamante ne moom la yëngal te wax nga ko léegi li nga xamee ne moom la mujjee mais lan moo tax mënu koo njëkkee tey il y a des arrestations tous azimuts da ngay dégg ñu ne jàpp nañ tel membre Pastef jàpp nañ fii jàpp nañ fii mais loolu lépp tey je dis réew mi dafa am sérénité boo xam ne actuellement moom la laaj je me procureur de la République moom il doit beaucoup participer à en tout cas rassurer le, le, climat politique bi nga xam ne moo am ci réew mi mais j'ai l'impression que procureur bi lii xew yëpp sur le plan politique dafa am benn en tout cas une responsabilité fondamentale boo xam ne am na ko ci et fois dossier yu mel ni dossier yu mel ni su amee da ngay gis taxawaay bi ci procureur bi taxaw et aussi perception bi nga doon wax nit ñi tey boo doon def sondage ci procureur de la république nit ñi ni ñu koy percevoir en tout cas. est-ce que du lien bi moo ko waral lien bi procureur ministre président. est du lien boobu. waaw mais loolu xam après il faut ñëw ci peut-être. sur la est du loolu moo ko indi aussi. waaw mais mais même même ci loolu aussi. am na loo xam. parce que nag moom aussi ministre bi mooy kilifaam. waaw mais d'accord ministre bi mooy. président mooy kilifaam mais ministre bi aussi am na loo xam ne du ko dugal ci gémmiñam na ko da def lii par force. dina ko ko bind waaye. am na loo xam ne mën na koo bindal. waaw mais am na loo xam ne aussi tey man man mënu ko faa yeggloo bu fekkente ne parce moom lépp lu muy def aussi pam ngay toujours dafa war a tënku ci yoon xam nga un homme politique mën na la sant loo xamante ni yow. yow da nga daf lay leer yoon yoon dafa sew de. ah waaw non yoon dafa sew yoon dafa sew de. ñoom ñoo opté pour nekk des magistrats waaw ñii ay procureur la ñii ay juge lañ ça dire que même su fekkante da nekk ci parquet bi mhm. waroo jalgati waroo jalgati yoon d' accord d' accord alors euh, professeur Ngouda fii nag vraiment soxla naa ci sa éclairage carrément parce que bu ma